jàngatee rek mooy euh, nit lépp loo mënti am yaakaar naa ne war nga kaa mën a jox say waajur wala nag nga sédd leen ci ndax euh, nit euh, wala doom lépp loo mën a am wala lépp loo doon tey rek c'est grâce à sa waajur yi nga xam ni ñoom ñoo la indi ci àdduna kon caat dafa juum trop waaye nag li ko dal yaakaar naa ni dina nekk leçon pour beneen yoon ndax joxoon ko yaayam moo gënoon keneen di ko jël si moom ñu jàll ci caama moom nag gis nañu ni dafa mere jëkkëram bu baax a baax li benn yoon ndax eh, da ngay nekk ak sa jëkkër eh, loxoom jotul ginnaawam nga koy jàppale di ko suturaal waaye mu nekk si xale yi rek di kolosaatu di la ñàkkal fayda te ku ne xam na ni jigéen dafa gaaw a yàpp moroomam eh, te nag ay tendance ak wax ju sew dañu koo bëgg trop kon caama yaakaar naa ni donte jëkkër kilifa la jëkkër sang la am na noo xam ni waroo ko wax ak moom waaye dañu koy comprendre ndax lépp rek comportement jëkkëram moom moo ko waral ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni nag na ne kilifa la ndax yaakaar naa ni euh, góor bu ñëwee di ñanti sa doom waroo xool euh, ndax am na alal wala ngay xool euh, leneen li nga war a xool mooy ndax am na diine waaye itam ndax am na yar ndax sa doom yaakaar naa koo koy dénk da nga ko war a dénk koo xam ni bis bu demee ci ay loxoom dina ko mën a mat kilifa te kilifa pour nga mat ko yaakaar naa éducation de base di nga ko am waaye itam di nga am diine kon yaakaar naa ni papa ki ne fi mu basé wu ngir rek may xalil doomam nekk na loo xam ne lu am solo la nag waajur naa ni loolu la ñu war a basé wu parce que loolu la leen euh, diine euh, sant waaye gis nañu ni Yaye Kiné moom ay problème la bëgg a créer ndax mbirum xaalis la ci bëgg dugal te ku ne xam na ni xaalis ci fi mu dugg rek mën na koo daal di yàq ñu jàll ci euh, beneen séquence ñu gis ni ngéwél nekk na loo xam ni lu présent la ci série bi muy kër goo xam ni gis nañu ni kër géwél la parce que ni mu décor bi rek boo ko gisee waaye itam ni ñuy doxalee ci biir kër gi kon yaakaar naa ni kër géwél wala ngéwél indi nañ ko bu baax a baax ci loo xam ne lu am solo la ndax ku ne xam na ni géwél dafa yàgg fii ci Sénégal te depuis jamonoy maam ba tey famille boo gis rek dañuy am seen ay euh, géwél muy loo xam ne lu am solo la te nag lu neexal euh, dëkk bi la ndax yaakaar naa ni géwél moom euh, fu mu amul rek foofu du neex rawatina nag boo amee xew wala nag nga am loo xam ni bëgg nga rek ku la tagg wala ku la xamal sa bopp ndax d'habitude géwél mooy ki nga xam ni day fekkee démb waaye xam bu baax a baax démb ba tax na nag ñoom ñoo mën a xam lu bari ci histoire te nag fuñ ko waxee rek rek nit ñëpp dañuy daal di euh, fier ñu gis ni nag caat dafa mer bu baax a baax ndax euh, jëkkëru caama euh, dafa jëloon xaalisam tax na nag mu mer waaye gis nañu ni mer bi gaaw naa giif bi mu ko tuddalee xaalis mu mel ni comme li ñuy wax xaalis nekk na loo xam ni mooy ubbi yëpp kon tey caat lu mu meroon meroon tey kontaan na ndax xaalis bi nga xam ni moom la ko jëkkëru caama tuddal ñu jàll ci yaayu caat moom gis nañu ni mu ngi xuloo ak ay moroomam li ko waral nag mooy dafay jàpp ni rek euh, caat ay frère am duñ ko sédd bu ñu liggéeyee ba pare loolu nag muy loo xam ni moom loolu la ko doom doomam gëmloo waaye yeneen maire yi jàpp nañu ni loolee amul euh, ndax euh, neex ak ñi si des xalaatuñu liggéey te duñu sédd rek seen ay morom mu mel ni kon nit waroo dégg teel rek ne yet ba damm na wala nag nga dégg benn version rek daal di koy gëm donte sa doom moo la wax wala ku la jege moo la wax war ngaa mën a déglu ñeneen ñi ngir xam fu dëgg bi féetee balaa ngay dal ci seen kaw ndax loolu du wax rek euh, réeroo amul ñàkk waxtaan rek moom moo am kon lu waxtaanee rek déggoo dina am ñu jàll ci euh, collègue xalil bi moom nag mi ngi koy digal ndax li mu gis dalul xelam te mooy rek moom xalil mu daal di def ndànk te def li mu mën ndax ku ne xam na ni xew neex na trop waaye nag euh, li nga am yëpp nga daal di koy dépensé ci benn fan ëllëg nga xëy doo am loo jox sa soxna ndax comme li ñuy wax may gu dëkk may gu njëkk moom moo ko gën kon nit ñi war nañ bàyyi xel bu baax a baax ci loolu waaye dangay gis ku économiser jour ñëw mu daal di ko ciy def lépp ngir sagal boppam wala ngir sagal jabaram waaye waaye ëllëg ngeen am problème pour dund yaakaar naa ni loolu dara jalu ko kon collègue gu xalil bi euh, li mu koy conseillé nekk na loo xam ne xalil xalil waroon na koo suivre euh, ndax moo gën ci moom ñu ci euh, Adja Binta di yaayu xalil moom it mi ngi préparé xew bu baax a baax ndax jàpp na ni xew bu rëy la war a def ngir nag concurrence ak yaayu kin ba tax na nag mu woo géwélam di mi ki nga xam ni moo di Père Zora waaye gis nañu ni Père Zora itam bug koo yombal benn yoon te it nag pare na ngir gunge ko ci yaayu kin ne itam woon géwélam mu mel ni kon instant enfant yi ku ci nekk rek yaa ngi xool sa boor noo mën a def ba sa euh, côté daal di nekk xew bu rëy a rëy lépp nag defuñu ko ndax dara lu dul puukarewu wala nag gis leen ma mu mel ni kon fii Sénégal li ñu sonal euh, mooy euh, di ñuy sooraale trop waxu nit ñi ndax yaakaar naa ni ku ci am xew jàpp nga ni boo xewul nit ñi dañ lay kawti kawtee wala nag nit ñi dañ lay daal di xeeb dañ lay daal di tuutal ba tax na ku ci am xew da ngay sonn dangay bëgg rek lépp loo xam ne mën nga koo mënoo ko nga daal ko ciy def alors que loolu yaakaar naa tànk bàyyiwuñu ko li ñu bëgg ci suñu dëkk bi duñ ko gaaw a am ndax ku ne xam na ni yàq baaxul ñu jàll ci yaayoo xalil moom nag li mu bëgg mooy créer ay problème ndax su mayuwul doomam dina gën a am ay difficulté ndax mi ngi koy réclamer xaalis te ku ne xam na ni xalil euh, li mu amoon yëpp mën naa ni jox na ko euh, waa kër euh, jabaram kon bu yaayam ñëwaatee di ko laaj ngir def événement dina nekk loo xam ni lu métti la ci moom waaye moom xalil merewul yaayam ki mu mere mooy faatu di grande sœur am ndax jàpp na ni moom moo influencé yaayam muy loo xam ni kon dara métti la ci kawam waaye xam ni moo di yaayu Xalil ak lu ko faatu influencé influencé waroon naa xam doomam lu mu mën daal koy yen lu mu àttan ndax yaay yaa war a jàppale sa doom waaye nag soo bëggee lu sa doom jox sa jabar wala lu dox ay mbokk jabaram mu daal di la koy jox yaakaar naa ni sa doom rek ngay daal di sonal ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni jëkkëru caama moom li mu bëgg nag mooy séparé wu ak pëya ndax ki nga xam ni moo di jabaram loolu la ko euh, bëgg loolu la bëgg mu daal di koy def waaye mel na ni euh, gannaaw bi mu ko waxee nañu séparé wu mujj na ko regretté ndax euh, pëya ni nga xam ni noonu la mel maanaam jekk te nag jàpp na ni rek moom genre yooyu la bëgg kon yaakaar naa caama su yowul dina ñàkk ndax jëkkëram ji parewul sax ngir daal di bàyyi pëya ñu jàll ci beneen séquence ñu gis ni géwél yi ñoom nag ñoom ñoo xool ku ci nekk nan ngay def ba sa xewu géer uh, daal di gën a ñoŋ xewu keneen ki mu mel ni kon uh, concurrence bi tàmbali na te kon yaakaar naa ni day gën a métti ñuy ñu jàll ci xalil uh, xalil nag moom jamono ji xelam dalatul li ko waral nag mooy liñ ko sëf dafa bari trop waaye moom it li mu sëf boppam bari ndax yaakaar naa ni olof njaay ko wax def loo mën wax loo mën soo dee da ngay daal di nelaw kon moom xalil tey ak lu bëgg-bëgg bégal jawaram ak lu bëgg-bëgg daal di ciy yem ñu jàll ci Père Zora moom nag dafa mer ndax jàpp na ni ay euh, rakkam wala ay doomam euh, gardé rek wala respecté wuñu seen patrimoine muy ay ndënd yi nga xam ni di ay sabar yi nga xam ni si la ñuy suturloo mu mel ni kon ku ci nekk euh, sa outil de travail da ko war a respecté ndax moom moo lay jox gagne-pain kon Père Zora li muy réclamé nekk na loo xam ni lu am solo la ndax yaakaar naa géwél bu gisee ndënd wala instrument de musique bu mënti doon da ko respecté ndax c'est grâce à loolu si la mun a ses besoins kon yaakaar naa nit loo xam ni moo lay may dépense euh, di la may teraanga da nga ko war a fonk respecté ko kon Père Zora donte naqari na deret waaye li muy wax dañu koy euh, comprendre ndax nekk na lu am euh, solo ñu jàll ci Kiné moom nag dafay stressé jamono ji ndax préparatif yi muy xalaat ndax xew bi dina baax wala du baax mu mel ni kon nit moo sonal boppam ndax tey bu fekkoon dafa def cérémonie bu yam li ko doon lii yëpp du ko si fekk nit ku ne nag boo bëggee noppale ko a def borom def na lii man dinaa ko def mu mel ni nag ay xaritam kenn ki moom uh, ku am xel la te it ku baax la ndax conseiller na ko rek mu def li mu mën ba teg ci sax nit da koy jàppale ci yenn dépenses yi waaye keneen ki nga xam ni àdduna moo ko yitteel uh, te nag uh, day jayaatee te yaakaar naa nit ñi moom boo leen toppee nañ la dugal ci guute ba pare génn taxaw fee di la ree mi ngi koy gën a dugal ci xew mi ba sax di ko wax ngir mu gën a teg pression jëkkëram ngir mu joxaat ko xaalis ndax noon yaa ngi taxaw te mën nañu ko ree genre xarit yooyu nag yaakaar yaakaar naa ni c'est à éviter euh, ndax xarit bu bu naan la tegal sa pression sa jëkkër kooku bëggalu la jàmm ndax yaakaar naa ni góor bëggul benn yoon ku koy teg pression na nag koo xam ni sa sëyagulee euh, li ñu naan nag def loo mën wax loo mën soo tëddee nelaw kinne euh, dafa dugg ci loo xam ni mënu ko ba tax tey muy woo koo xam ni exam la ci veyu mariage am juste rek ngir am loo xam ni da koy ci événement bi ngir mu gën a ñoŋ yaakaar naa ni nag loolu bu jigéen a